بسم الله الرحمن الرحيم salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu del siwaat ci 2169 bi tawfiqi rabbina eh, di sàkkuwaat rek donte sunu yaakaar nag fi ne ma na lool ci diggante Palestine ak Israël ndax xam nga ñaar bu ñuy xeex te ñu doole mel ni benn opposant buy xeex ak état ci am réew boo ko xoolee fi ci Sénégal ni opposant bi di ëppee doole ni état bi di ëppoo doole opposant boobu daanaka daanaka fi xaw xaw na ne deme moo tax metti na trop trop trop trop mbokk yi ma misaal la xasaat dëkk bu avancé ba daanaka luñ doon def ci courant lañ koy defee tey jii dëkk ba mel nee côté géej gi ci kaw ci côté yu nekk ñu ngi fay bombardé maanaam yàq yàq nañ dëkk ba yàq mbokk yi bu junni junni feebaree xañ na kenn kenn lañ cee mën a faj waaw metti na trop suñu borom daal naka jekk moo ci des nag waaye fi ñu toll nii moom man ak démb moom jàq naa moom wax dëgg yàlla waaye nañ ñaan rek ginnaaw moom lan man olof daana wax ni euh, golo gu munta yéegit war a mën a bés guy daanu waaw waaye day rusule na lool lool ñaar fukki réew ak benn réew arab réew yu julit waaye daanaka rek amul benn jeexital ñenn ñi ñu ngi ni tekk ngir calcul politique ñenn ñi moom duñ mus a wax mukk mukk mukk waaw ñu seew a mucc seew a mucc kon bu continuer leen ñaan yi rek mbokk yi mbokk mi nee na kii mu nekkal de dafa bari alal lool waaye li ko tere tuub daal mooy génn asaka daal ndax moom milliardaire la te ginnaaw bu duggeen ci lislaam bu waxtu delsee milliard bu ne lam cey génn bi mu ko xoolee dafa bari lool ah milliard de moom nag foog nga génn ci lu mat cinquante millions de juróom fukki millions bu ma juumul daal ndax bu doon benn million bu ne nga génne ci juróomi junni waaw boo ko multiplier fois mille nag lu lay jox ay mbokk yi mbokk ku yàlla jox un milliard kenn nit mu jox la ci ay milliards ay milliards ngay naye génne kooku ngëm yàlla duggagul ci xol bi ndeysaan ngëm yàlla mu dugul ci xol bi waaye danga koy leeral ni ko lislaam boo ko gam-gam seen mbooloo yi ngeen bokk muy association yi wala lu ngeen ko mën a tudde sax am na ay tërlin yu ngeen tëral même société yi nga yore ak convention yi ngeen di am ay déggoog yëpp lu ci nekk ay tëralin la lislaam ay tëralin la yoo xam ni euh, boo nekkee ci biir ca ngay tënku yàlla mi sàkk ñëpp xam euh, li gën ci nit moo ko tracel nit te lislaam wane na ni jamono yi nga xam ni ñu ngi ko doon tatbiix ba alal yokk réussir nañu ko ba mu mujjoon na fu am jullit nekk ba mën a nekk asaka ba mën a lekk asaka amatul jamono jamono yu Omar ibnu Abdul Aziz ñuy wëri ban jullit moo mën a lekk asaka léegi amatul ñëpp ñëpp riche nañu ndax jaarale yoon niñ ko doon génnee ak niñ ko doon joxe ba mujj ñuy def loo xam ni même ñi nekkul jullit lañuy jariñu ci asaka jooju allahu akbar moo tax alors Rachid moo waxat benn bis asamaan si xiin nag yëngu mu wax waxiinu kuy sant yàlla wax ak yi ni ko ah nun de noo ngi toog fii rek waaye ak foo mën a tawee taw ba bu wàccee ci suuf lu ca saxee bu meññee rek meññil ma den fekk fi nu toog mooy asaka ja dana génn te bu génnee di li ñëw ci loxo lislaam te booba moom moom moo nekk sultaan bi kon kooku ngëm yàlla duggagul ci xolam milliardaire bu bëgg a tuub di calculer la muy génne bu asaka jotee subhanallah cey alal gis nga alal alal day sax ci xol alal dafa sax ci xol mbokk yi tax euh, asaka euh, moom dafa yomb a comprendre lool ndax yàlla bu doon laaj wàcc ci kaw suuf ku bëgg a bari le xam ngeen tontu li moom ñëpp wax man man ñëpp naa waaw man mii damaa bëgg a bari le bu yàlla tànnee minorité bi nag ñu am lu leen ëpp mu wax leen ci ñu war génn asaka même ñi nekk ay fakir sax ku ci bay ba mu ñor mu am nisaab na génn asaka ndax am na ku ñorlewul am na ku bayul am na faqir am na miskin nga jox ko nga xam ne day point boo xam ni lislaam rek mooy diine joo xam ni am na ca point social bu rëy ni asaka point social bu nga xam ni day nit nit moo ko jox moroomu nitam julli gi mën nga ni saa digg ak saa boroom la koor gi mën nga wax loolu waaye zakat nag di ñetteelu point ci lislaam ginnaaw bu saxaada bi nga seedee def engagement dugg ci lislaam demee ak julli juróom moo ñëw troisième position moom asaka waaw kon eh, nañu xamal kooku taxawaayu asaka ci lislaam ak ponk yi juróom yi yëpp benn bu ci nekk li defar ak ki dugg lislaam te du jëfandikoo ponk yooyu lim ko yàqal ak ki jub lislaam taxaw ngir bañ a dugg ngir bañ a génn asaka kooku bu yow mal xiyaamee parce que jombul kooku eh, am na tuuti eh, lu mu gëm ci lislaam waaye alal la sori ci xol bi rek waaye ginnaaw bëgg naa dugg daal lii dong mooy problème kooku bu ñu ko bàyyi loolu bu ñu ko seetaan mbokk waaye mbokk yow mi ci bëgg a jariñu ak it nee na euh, bëgg naa xamit moom li mu musoon a dégg ci benn jàngkat da ko lool euh, lii ñuy wax alkabair juróom-ñaari bàkkaar la yi ñu wax ni morot ci xadis muy bàkkaar yu mag yiy dugal nit sawara déggaat na ci ay lim nag waaw am na ñu indi fukk ak nangam fanweer ak nangam ñeenti téeméer ak nangam am ñu ko def istixraaq ni mboolem bàkkaar bu mën a duggal nit sawara lay bokk ci boole ko ci kabaa'ir yi gis nga kon boo ko defee daal noppalu den ci ñëw gis nga bokk yi asaka eh, xaw ma tubaab la xaw ma en tout cas yàlla mën na koo dimbali ndax asaka moom toll na ci waxtu woo xam ne sax am na ñenn ñu ñor la ñoo xam ni yàlla noonu la leen waxtu ngeen di góob mu ngeen di dékki di récolter waxtu ngeen di witt bis booba génn leen ci eh, asaka ci jox ko seeni woroom kon ab som la bon li ñu ko tuddee asaka ndax lan eh, li annaha eh, moom day seetal jaam bi ay tutahiruhu wa tarfau sha'nahu inda rabbi da jox daraja fi boroomam moom jaam bi bu génne asaka wa tusakki maala ay tunmiihi wa tubaarikuhu wa tusiidu fiihi day barkeel alal di ko yokk kon asaka saraf la waaye ndolleente la waaye barke mooy buñ ne génne asaka rek mooy jaam bi kat euh, léegi set na am na beneen maqaama mu gën a kawe moom aman mbiram léegi macha allah alal ji tamit macha allah moo tax suñu bu ne xus min amwaalihim sadaqatan tutahiruhum wa tusakkihim biha te sadaqatu fii dees na ci jublu mooy zakat muy asaka gi yàlla farataal am na ñu ni wa yuraadu biha sadaqatu tatawwu mën nga caa dégg joxe ngir saraxe ngir coobarewu tutahiruhum mooy euh, tunaqi xulubuhum day setal xol yi min athari shirk lu jëm ci lépp luy bokkaale wal buxlu luy nay ak nayug bakkan day setal yaram yi min amraadi ci ay tawat wal afaati ak i gàkk nga تزكيهم بها تسعد لهم عند الله بالوفاء والإيمان joxe asaka day seedeel jaam bi fa boroomam ni matal na kóllëre gi kii kat ku gëm yàlla la ndax ponk bii moom matal na ko gis nga ko te loolu da koy jural barke ab àtteem nag moom asaka <coughs> mooy ñetteelu ponk niñ ko waxoon sànq ci ponk lislaam yi ginnaaw julli ak saada yi yàlla lëkkale ko baat yu bari ay yoon yu bari ci biir alquran mook julli yu farataal ko ci shawal ci atum ñaareel mi ginnaaw bu ñu gàddaayee kon jullit yi nekk nañ màkkati luñ génn asaka waaye imaan rek ngëm yàlla yàlla di den tabax ci ngëm yàlla bañ am tawxiid ba bu demee midin rek na génne songoo ak junniy nit xareek ñoom nekk ci weeru koor ñu ci alxuraan mi ngi ci sut la moom lii di asaka kon moo tax fa man ankara wujuubaha faxat kafara ku weddi asaka rek boo xasee dugg ba pare wedde ko lànk bañ ko joxee ndax wedde ko <coughs> war na ci xaakim bi mu digle ñu tuub loola nga delluwaat nangu ko accepté ko di ko jëfe su nanguwul nag ba ñetti fan hakim bi da koy daal di rey ah, waaye nag reyul ab yéefar waaw ah, euh, léegi comme liñ la waxe woon ca àtteb ab jullit boo xëy dafa bàyyi julli nga xam ni ñu ni inal maqtuula kufran laa yox fekkee ni ki lank ni julli daal moom dafa warul ba ñu considéré ko ba rey ko mel ni ko rey ab jullit ko rey ab yéefar bañ ko jullee bañ ko nangam bokkul ak ki accepté waaye da koo deful bokkuñ bokkuñu ñooñ ñaar ñooñu kon mbokk yi wa man aqara bi wujubiha wamtanaa an aadaiha axasa al xaakim min uqa aran ja sëñ tubaa am na lum ci indi ca sawul ci xaar sax kon kii nangu te nangu koo joxe ak accepté asaka te nangu ko joxe ak kii lank tamit ni moom sax daa wóorul abou joxe na ci misaal xaasala abou bikirin rayante na xeex na ak ñoom ñoom ñi nga xam ne dañoo lank may joxe asaka <coughs> daan ni law mana'uni iqaalan kaano yu'duunahu ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam nga xam ni yu adduunahu ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam nee na laqaatatuhum alayhi nee na eh, waxuma sax lu tuutee ni iqaal jumtuwaay la loo saaru buum la ci yére yi ñuy takk ci gileem di ko jëfandikoo bu ñu ma bu ñu ñu ko xañoon ci ak lislaam sax dinaa xare ak ñoom ndax booba am na ñu ko doon yebbal yebbal kon mbokk yi asaka ñun dinañ ci ñëw bunt bu yaatu sax ndax maaniwu zakaat bu ñu la waxaloon tey jii ki dul joxe asaka li koy xaar yombal xiyaam di nga ni waxat tuub la nga joxul woon nga jéem koo génne bala nga faatu ndeem am nga ko su giir gi dund li ci def di nga ko génn ndax lan bu fekkee ngëm yàlla ci yow waaw loolu ëpp naa xalaat mbokk yi bu fekkee am na jullit ju koy def nañu ko bàyyi nañuy ñi njaboot gi ñu di leen laaj ni leen mbaa ñu ngi génn asaka buy tukki di dem ñëw rek di la jox ngay ah, dépasso dee ko laaj ba xam mbaa bi ngi génn asaka waaw ndax kat daa am ñaar yoo xam ni dem màkka génne asaka moom ndaw yu baree baree bari yitteelu leen yitteelu leen wax dëgg yàlla am na de doonte am na ndaw ñu mu yitteel nag surtout ren jii waaw rawatina ay jigéen yoo xam ni euh, fes nañu lool ci at gi ren fa tabaaraka la yàlla yàlla gën a yokk yu mel noonu kon asaka mi noonu ibada maaliya la goo xam ne yataxarrabu biha al abdu ila xaaliqi asa jàlla jaamu yàlla ak alal nag gu jaam bi di gën a jege boroom bu màgg boobu bu ko joxee ci anam yi gën a mat eh, nga xam ni day ànd bakkanam gërëm ko lool ngir sàkku ca tuyaabay boroom bi ak jëfe ndigal yi amul dara ci ngis tal loola am na ko musal ci mbugal mu sawara mën na ko sababal dugg àjjanaam kon kooku foog wax ko avantage yi nekk ci génn asaka convénient yi nekk ci bañ a génn asaka wasu yu jannabuha al atqa allazi yuti maalahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min amatin tujza ila ibtiqaa wa rabbi al ala wala sawfa yarda gis ko maanaam sa yabadu an jahannama maanaam génn asaka da koy soril sawara waaye wala si yuti maalahu waaye li mustaiqihi asaka nga jox ko ka ko yayoo mubtaqiyan waj arab bi sàkku woo ci dul rek gërëmul sa borom laar jomi na xat ki nga ko jox bëggoo ci jasaan wala shukura xaaroo ko ca ixlaas lillahi asa wa jalla kon suñu borom ba mu ne xat afla almuminuuna allazina hum fi salaatihim xaasicuun wallazina hum ani laxwi mucriduun wallazina hum li zakati faaciluun yàlla nee na ah, ñi gëm ñëpp texe nañu ah waaye dafa yemul nag waaw waaye nag nee na ña nga xam ni ci seenu julli kat dañ cay toroxlu lool jox ko la mu laaj lépp mooy ña nga ni du ñuy du mooyu lépp luy ay neen waaye mooy ñi nga xam ni asaka dañ koy joxe dañ koo wattu respecté ko kii kon ku taxawul ci jullit ñi ci yow la bokk ci yow la rawatina nag asaka nga xam mën ngaa dund ba faatu te doo ko génne te du la wàññi dara ndax amoo ko denc jëw waxtu bi dafa jot incha allahu wasalaamu aleykum wa